salaamaaleykum waa Bambey asalaamaaleykum wa Senegal Cheikh Cheikh Malick Fall chargé de communication du district départemental de Karaté de Bambey wa tey jii daye, ngi fi ñëwoon daje pour mettre en place association des sports de combat arts martiaux sport de combat donc mu doon li nga dañ koy rafetlu di ci wane participation wu ñëpp mu doon li nga ni manière inclusive et participative xamante ni inspecteur du sport def na ko aussi tous les acteurs du sport de combat aussi ñoom ñëpp def nañ ko donc muy karaté moom engagé wu ci aussi may parle à leur nom que ni désormais activité bi nga xamante ni am na ci cadre association boobu incha allah dinañ ci mener à fond ba lépp li nga xam ne ñu ko ci xaar dinañ ko raw ci résultat salaamaaleykum bismillah mina sheytaan rajim euh, comme ni ngeen ko waxee rek ñu ngi nuyu ñu fi teew yëpp euh, di nuyu inspecteur des sports bi njaay euh, di jël nuyo bi di ko teg ci président association bi nga xam ne nii juddu na fii ci Bambey ñu ñaan yàlla rek ñu tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ci alhamdulilahi rabil alamin ndax mbir la boo xamante nii ñun sport def yëpp nga xam ngi def sport combat ñu dajaloo ci ginnaaw président bi xam naa moom bu ñëwee dina ci gën a yaatal mais di wax rek ne taekwondo bi nga xam ne ni bon représenté naa ko fii nii engagé wu nañ ci li nga xamante ni moom la ñu créé muy lu bees euh, lépp loo xam ne daf dañ luy développé rek incha allah taekwondo bi dina ci euh, engagé wu ànd ci kook suñu euh, frères yi nga ne nii ñoo seq lépp Euh, di rafetlu comme niñ ko waxee yëpp pour bañ a guddal di wax rek ne engagé wu nañ engagé wu xam nga sportif moom parfois du mënee wax jëf lay gën a mëne kon nag ñu ngi ñaan rek yàlla nañ ko tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim egle ko ci alhamdulilahi rabil alamin xëj na président yi bu ñëwee dinañ gën a yóotal gën a gën a xóotal gën a leeral euh, ñuy remercier aussi Modou Ndiaye euh, ci li nga xamante ni yaa ngi koy def ci lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci département bi ci lu baax yaa ngi fexe adduna yëpp kon nak sant nañ leen gërëm nañ leen jërëjëf. salaamaaleykum mbokku Bambey salaamaaleykum le monde sportif salaamaaleykum cher Boudoka euh, donc c'est Mambiram Diouf responsable technique Vovina Virura Djurbel, en même temps professeur de PS au niveau du lycée de Bambay et euh, secteur général de l'association des arts martiaux et des sports de combat AZMS Bambay. Voilà, moi structure bu nga xam moom la moom lañ doon monter donc doon structure boo xamante di regrouper l'ensemble des arts martiaux et des sports de combat ici au niveau de Bambay. Waaw di wax que ni euh, euh, je suis là en tant que le responsable technique de Vovina Virura ici Djurbel. Aussi mu suis art martial d'origine vietnamienne mu suis venu bëgg ko installer à Bambay pour su ko defee bénéficier aussi beaucoup au euh, Bambey yi surtout le monde martial ok merci jaa ngeen jëf. alaikum. waa Bambey maa ngi autorité yi préfet moi monsieur le maire muy kilifa diine ak est responsable conseil régional ñi nga ñom ñoo jité suñu gox bi moy Bambey ah, man ma ngi tudd Jibril jata nek pratiquant kung fu fi ci Bambey tay wa azamesk moy association pratiquant art martiaux ak sport de combat yi man lañ tan jox ma ma nek sen président pour diriger sen association am naa ci mbégte lool te di ñaan yàlla mu jàppale ma mu mun la matali sama liggéey ci jàmm pratiquant arts martiaux yi bëri nañu fi Bambey presque discipline arts martiaux yi yëpp am nañu fi te sport de combat yi am na ñi nga xamante ne teewaguñu mais sooraale nañ leen bu ñuy créer association bi Euh, Mangi suis ndukal inspecteur des sports monsieur Ndiaye mi nga xamantene mom mu ngi def pour sport bi développer actuellement surtout ñun pratiquant des martiaux gis nañ ci suñu ci di ñaax nit ñi pour ñu jappalé ko ci parce que yombul li ma bëgg qui ci sama moy ñun bo gisé ñu regrouper wu tay bo gisé ñu ñëw créer structure bi ndax dañoo dem dem dem ba xamni mbolo moy doolé structure bi pour dundatal pratique art arts martiaux ci Bambey la té tamit muñ ci jaar pour fajj suñu ay soxla donc lu may def moy lancer appel moy wo ñep ñi nga xamante pratiquant art martiaux la ñu ci Bambey tamit di def yenen sport de combat yi comme boxe wala savate wala escrime fekkente ñu ngi fi ñu ngi leen di wo ñu ñew bok ci association bi. Je voudrais d'abord saluer les autorités de ce département, monsieur, madame la préfète, monsieur le maire, président du conseil départemental ou bien toute autre autorité coutumière ou religieuse de Bambay, les informants de la création de ZAMESC de Bambay, qui est la structure qui regroupe tous les pratiquants d'arts martiaux et des sports de combat. Une structure qui, par devers, existe certainement dans d'autres lieux, mais que nous avons voulu élargir jusqu'à Bambay pour travailler de concert pour la valorisation de la pratique des arts martiaux et des sports de combat, mais aussi pour tout simplement mettre en pratique ce slogan qui dit que l'union fait la force. Je ne vais pas tout pouvoir expliquer aujourd'hui, mais je sais que désormais, à Bambay, il y a une structure, une association regroupant tous les pratiquants des arts martiaux et sports de combat dans le but de réhabiliter, dans le but de révaloriser ces disciplines. Et sur ce, sur ce, sur ce, je lance un appel solennel à tous ceux qui voudront y participer activement et nous invitons toutes les populations de Bambé également à nous soutenir dans notre initiative qui n'est pas seulement sportive parce que aussi nous avons d'autres choses auxquelles nous aspirons parce que le sport et l'éducation vont ensemble. Le sport et le développement vont ensemble. Le sport et même la religion vont ensemble par moment. Donc, euh, c'est ce que j'avais à dire à l'entame de mes propos. Assalamu alaikum, euh, mon maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay euh, di rafetlu de initiative yi nga ne tey pratiquant donc ci euh, nga ñëw téwé li nga xamné moy rencontre bi tay ñoo ngi la ci jaajëfal bu baax donc di ko rafetlu encore de plus euh, comme ni ñu koy waxoon rek ci fan yële passé donc tout juste bu ma jëlee service euh, dama leen ne ni donc sama paré structuré donc toutes les disciplines donc on va faire de notre mieux pour au moins ñu am ce qu'on appelle une association parce que la remarque que j'ai faite moy au niveau de Bambey discipline ñu ngi œuvrer de manière singulière et xam nañ tey tey association doole bi nga xam moom koy am mais également légitimité bi nga xam ne war na ko mëna am euh ñu gis ni que tay euh, au moins nous avons une association bi dinañu permettre à notre niveau euh, ñu faire des donc tout ce qui est activité au niveau départemental donc je pense que nous koy defandoo également au niveau des formations ñu défendons mais nous permettre aussi ñu structurer de telle sorte que donc nous nañu am partenaire ay futurs partenaires appelé parce que nous avons une association qui ko mettre en place donc dinañ ko régulariser donc nous am récépissé récipice. ba nous euh, bu nous amee ñu ñu war a ñu jàppale ñu départ de l'association parce que nous avons le monde des armations nous ñu souffrir

Euh, tout ce qui est euh, discipline au niveau des arts martiaux donc mu ci gis donc le bureau a été constitué donc de manière euh, très professionnelle surtout avec un consensus. ñu avons fait le coup. Nous avons ñëw sax dañu on va essayer de discuter la perspective pour nous mettre en place le bureau. mais comme toutes les disciplines étaient représentées donc les gens sont engagés de manière responsable et ce qui nous a facilité le travail de sorte que on a monté le bureau.

Euh, de am li nga wax permettre le monde des armes de développer C'est vrai que nous sommes sur la bonne voie maintenant nous ñu ñaan avancer donc comme le président waxee rek may lancer un appel également donc à toutes les autorités locales euh, les bonnes volontés ñu xam aussi donc euh, y' a pas que le football en tant qu'inspecteur, inspecteur dama koy wax je fallait quelques gis de sama disponibilité de par le monde du foot mais également il n'y y' a pas que le foot donc il y' a d'autres disciplines de mel les arts martiaux la lutte de mel le basket le handball volleyball extra etc. et j'en passe donc disciplines je pense que war euh, vraiment considérer également aussi jéem leen jàppale ndax ne serait-ce que rek xale yi nga xam ne tey ñuy pratiquer sport euh, defuñu football dem defi arts martiaux dina permettre xale de tey ñu bañ a taxawaalu kon nag mu nekk loo c'est à promouvoir donc ne serait-ce que pour l'intérêt de Bambey

saytu ba nga xamante ni lépp lu def ci lu jëm ci terrain yeeg yooyu dinañ ko mën di lijjanti. da ci am solo xam nga déjà boo xoolee mën nañu ko mën nañu ko def de manière singulière mais te association bi rek loolu déjà mooy nekk premier euh, objectif am donc lépp li nga xam ne ci xaar kenn. Euh, déjà association bi mën nañu sax xool donc ay fonds yoo xam ne ñoo ko général seen bopp c'est important parce que loolu mooy l'objectif d'une association du rek euh, toog di talal loxo mais association da ngay jéem a xool ci activité activité lucrative yooyu di lay permettre à l'avenir que nga mën am benn fonds boo xam ne boo gisee nga boole ko ci def boo gisul li nga am nga def te am nañ ci yaakaar ni que vraiment engagement bi nga xam ñi am nañ ko ak euh, expérience bi nga xam am nañ ko wax dëgg fi yalla buñ ci waxtaanee ñoom euh, gëm naa ni mën nañu am lo xam wax dëgg fi yalla mën nañu ko doxal doxal doxal doxalee seen activité te macha allah te am nañ ci yaakaar bu baaxa baax en tout cas dina la di la Bambey TV donc de par la disponibilité bo ba légui ma ngi and euh, ak ñom fune donc je pense que barki démb jéxal sama tournée di lancer benn message rek par rapport à képp koo xam sportif nga au niveau de Bambey nga nekk responsable ñoo ngi lay convier à la rencontre du dimanche euh, prochain au niveau du centre euh, de formation professionnelle de Bambay à partir de 10h. Donc, nous avons tous les acteurs du sport d'Adjava, nous donc par rapport à la situation sportive donc, de Bambay. Donc, l'Indiat, au salam.